jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi doore ko nag ak kàddu yi nga xam ne moom mi ne di Souleymane Jules Diop daal dina ko yëgati jëmee ci Amadou Ba mu nekk nag benn alerte boo xam ne daanaka mënees naa wax ne kàddu la yoo xam ne du neex kii di Amadou baax muy kàddu yoo xam ne moom Souleymane Jules Diop daal dina koy yëgati jëmee ci candidat bu coalition benn bokk yaakaar Amadou baax ni ki dimanche jëlee nag moom nag àddu ci posture ki nga xam ne moo nekk seen candidat ci présidentielle yu ñu dëgmal Euh, moom nag daal na poussé daal un grand coup de gueule euh, kon moom Souleymane Diop ñaare ki nga xam ne jamono ji moo nekk actuel premier ministre bi mu ngi suscité même ay inquiétudes au sein benn Benno Bokk Yaakaar euh, kàddu yi mu yëgati nag nee na moom jàpp na ne kii daa Amadou Ba daal daf ne ko amor maanaam wanut lu doy ñi nga xam ne ñooy Sénégal yi te nag daal joxut xel mu dal ñi nga xam ne ñooy majorité bi ko jiital wanewul ni rek am na li nga xam ne mooy les épaules Euh, maanaam taxawaay bi war ngir nag euh, war a mën a nekk seen kanam euh, jéem a daagaan ba askan wi nee na deful lu doy moom Amadou Ba nag dafa war a bouger wër dem daje ak Sénégal yi mën a rassurer sax li nga xam ne mooy majorité bi ko jiital ci à un moment donné nag moom sax dem na ba naan Amadou Ba mi dafa war a assumer wu taxaw nag dëggal boppam moom nag nee na daal jamono jii di muy xaar rek mooy gis Amadou Ba boo xam ne dina taxaw. Eh, ca kanamu Sénégalais yi wan leen moom la maanaam Amadou Ba nekk eh, ku taxaw dëggal boppam inquiétude nag la mbujee jur kon candidature am ci biir coalition benn Bokk Yaakaar muy commencé susciter ay inquiétude sax ci rang yooyu eh, yu mujjee nekk lu profond moom Souleymane Jules Diop wax na ni mel nee nag moom nekk na koo xam ne à cent pour cent jàpp na ne Amadou Ba depuis longtemps daal moom candidature am daanaka nekk na loo xamante ni moom àndoon na ci waaye nag jàpp na ne ki nga xam ne moo di Amadou Ba bile ba léegi waneegul lu doy nee nag c'est un homme pétri de qualité nee nit ku am qualité la ko bëri qualité waaye nag euh, deful daal jamono jëlee li nga xam ne moom la ñuy xaar dëgg-dëgg ngir qualité yooyu mu wan ko. Euh, Sénégal ba ñu mën a am ci moom yaakaar te su continuer nii rek l'opposition dina organiser wu euh, pour baat leen ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal moom nag nee na ma wax leen ko en toute honnêteté euh, nit ñi duñ leen ko wax waaye nag ñu ngi murmurer dans les couloirs maanaam am na waxtaan yoo xam ne mu ngi am dans les couloirs du duñ leen ko wax il ne faut pas il faut qu'il nous rassure nee nag eh, am na eh, sunu candidat di Amadou Ba dañ ko choisir ndax qualité yi nga xam ne am na ko ngir nekk un bon président de la république waaye nag il faut mu def lu doy sëkk ngir nag mën a assurer li nga xam ne mooy kaam waaye tamit sax mën a eh, assurer Sénégal yi ba tax ñu mën a am ci moom yaakaar ngir mën koo voter massivement mu mën a gagner élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal mu nekkoon nekkoon kon kàddu yi ki nga xam ne moo doon Souleymane Jules Diop ci. Euh, candidat candidat euh, à la candidature bu coalition Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba jëmee ci présidentielle yu 25 février 2024 moom mu jàpp ne rek kon Amadou Ba bile taxawaay ba des na la ñuy xaar ci moom nag ba tax ñu tabb ko mu nekk ca seenu kanam ngir nekk seen candidat daanaka gisaguñu ko dafa war a nekk dëggalal boppam wan Sénégalais yi ne moom mii la li tax ba nu tànn ko ci ay biir moromam mu ngi fa ngir nag rek mën a convaincre ay Sénégalais yi waaye sax rassuré ñi nga xam ne ñoo ko tànn jiital ko ngir mu nekk seen candidat ci présidentielle yu 25 février 2024 fii ci réewum Sénégal jërë ngeen jëf mbokki internet yi. li mu doon xibaar ci bile vidéo yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu calande laata loolu woo di like di abonné ci seen chaîne ku déggan ci page bi te go ñu lay ñaan nga abonné activé ko defee lu nu dugal ci vidéo nga bokk ñu ko njëkk a jot cant ak ngërëm